21 février 2023 à Cambérène, devant le mausolée de Sénat Issa dans la matinée, et la grotte des Almadies Angor dans l'après-midi. Le deuxième jour, le mercredi 22 février, les manifestations religieuses à Yoflayen durant toute la la matin et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Ces grands de communication contribueront à ressourcer les fidèles aussi bien le plan que sur celui du civisme, de la citoyenneté responsable, de la stabilité sociale, de la paix et du développement. Justement, le thème choisi cette année est la paix et le développement à la lumière des enseignements de Sidina Limamoulahi D'emblée, une lecture croisée du rapport entre les deux notions clés du thème fait ressortir une vérité triviale mais implacable. Pas de développement sans paix. Seydina Limamoulahi alayhi salatu wassalam, le phare des Ahlullahi, l'a si bien compris que dans ses enseignements, la paix et l'entente occupent une place extrêmement importante. En effet, dans ses sermons, il déclare sans équivoque, entre autres, instaurer la paix entre vous. Soyez cléments les uns envers les autres et soyez généreux les uns pour les autres. Dieu est à l'égard des croyants très clément. Et l'éminent poète, chante émérité Abdullahi Libas Niang, subhaana maa ko yéene woon ñu boole xol yi ndax ñu mën te jéem a ñi jiitu woon te aw ci yoonu Muhammad d'autre part il est important de remarquer que ce lieu mythique et mystique où se déroule hic et non cette cérémonie a été baptisée symboliquement au nom évocateur de Djamalahi en référence à la Nouvelle Jérusalem qui étymologiquement signifie la ville de la paix en réalité dans une approche gnostique et spirituelle, Diamalahi constitue le projet social et sociétal du Mahdi qui fait de sa cité idéale un havre de paix, de concorde, de solidarité et de développement multiforme pour atteindre la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Sur l'état des préparatifs, d'ores et déjà, les travaux préparatoires ont été bien engagés, suivant la vision déclinée par le Khalif, Seydina Monotar Ibn Seydina Mandiou, et les instructions de Sidna Issa ici présent, sous son autorité, le bureau du groupement central des Layers, présidé par El Mondo Diagne, en relation avec la Fédération des Daïres, les commissions mises en place et les associations phares de la communauté, s'est alors organisé en vue de la réalisation des objectifs, notamment. kon ginnaaw bu ñu euh, nuyoo bu baax di jaar moom al xalifatul ak ay rakkaam ak ñu ñëw njabootu Seydina Imaam El Mahdi ak groupement central ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi teew fii yaakaar naa ne comme ni ngeen nga xamee Seydina Imaam El Mahdi dafa ñëw pour jàngale mu nekk ku yonent bi digoon ne dafay ñëw bu ñëwee mu am benn mission boo xam ne moom la war a doxal ci kaw suuf bokkoon na ci mission boobu li nga xam ne moom la ñëpp d'accord mu amul juyoo mooy ne dafay indi jàmm ci kaw suuf kon jàmm dafa nekk lu essentiel la sooglu oote Seydina Imaamullahi Mahdi parce que loolu moo taxoon li ëpp ci kër waroon indi ci kaw suuf mooy jàmm jooju jàmm jooju nag mu am moom nu mu ko déggee maanaam nu mu yare ak njabootam nu mu yare àddina bi tracé yoon woo xam ne buñ si jaaree jàmm dafay am ci kaw su moom nan la façonné ak njabootam ci loolu nag mu nekkoon benn personnalité boo xam ne bépp seconde bépp acte bu muy dox ci kaw suuf dafay nekk loo xam ne jàmm jooju moo ko tax a loolu moo tax danay wax ñaari point comme maa ngi gis euh, daaw na mbay bi si léegi mooy jàmm jooju bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy nit ki comme ni ko Seyna waxee léegi am jàmm ak boppam maanaam nan lay fexe yaraat nit ki ba mu am benn yox paix intérieur foofu la njëkk a tàmbalee mooy defaraat nit ba nit ki mën a am jàmm biir su paree ci loolu lay préparer individu bi ba nu muy contribuer ci jàmm ji nga xam ne moo war a am ci ab société mu jungi ci lu am solo lu ñëppay wax mooy al moominu maanaam nit ki accepté moroomu jullitam tant que accepté ko ngir am jàmm moo tax bàyyi laay jii wax alifun daf ne wa man laa yàlla faxada naas waxul sax moom mi waxul sax ne ku accepté wul jullit non daf ne ku accepté wul humanité kon mu nekk loo xam ne moom la jëkk def njabootam pour ñu am respect ci ñëpp bu ñu am amee respect ci ñëpp nag foofu la commencé di xool jàmm jooju nan lañ koy développé ci kër gi nan lañ koy développé ci quartier bi nan lañ koy développé ci société bi kenn ku ne ci biir mu wax la sa responsabilité yi nga am yow en tant que responsable pour jàmm jooju na koy mën a saxale ci kaw suuf mu nekk loo xam ne bu ngeen parcourir xutba yi di ngeen si gis mu nekk loo xam ne daf ko dunde ci biir jàmm jooju nga xool ne ak ñi ngay accepté sa morom dafay da xool ne bàyyi laay julli gi nga xam ne moom la imaam bi nga xam ne imaamu laayeen la bu jullee buy ñaan lan la koy ñaanloo avant muy ñaan gëm sabab na allahu ala jamaatil muslimin loolu la jëkk a wax avant ngay ñaanal kenn sa njaboot ne yàlla nañu yàlla saxal ba ñun du ñu tas mbooloo jullit ñi sabab na allahu ala jamaatil muslimin muy loo xam ne chaque prière laayeen la koy ñaanal jullit ñëpp kon ko kon jàmm ak jullit ñu nekk benn lu xéroon du mu xéroon la bu loolu taxawee ba jàmm am ci la comme ni ko sang waxee développement soog a am parce que yàlla dafa wax ne walladi anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha mu ne man yàlla maa leen créé ci waaye ba leen yi nag dama leen demande ngeen développé suuf si. raayin mas'ulun an raiyati nous sommes tous interpellés mbir bu ñu ñëw rek tëb ci nangam dañuy commencé suñu biir kër di yéeg ba ci kaw ñu ne ci kër yi ñooy jiite waa réew mi ñooy nangam rek daaw defe naa ñëw nañ ci yar ak lu ci laal donc fi société bi jëm wax naa sànq ni leen bu mu doon jàmm ay politiciens rek mais nañ doon jàmm société bi est-ce que li li li bon joxañ ak diw ak diw ak diw ak diw parce que te nag dañuy yenn saa yi dañ daan ngën nit yi diine ñi et c'est très dangereux parce que man ma bokk ci genre boobu gëmme woonu diine li ñu leen wax santé société la ñu càmbar mais nitu diine ci biir société bi na bokk si li ñu mag yàlla nee na akañ ah dëgg la nangam nee na dëgg la yow mi kay wax ni nitu diine nga bokk defe naa ni nit ku kuy digle lan sangu yaa ngi si jiitu gis nga li am solo nee naa la sama wax na citoyen di nekk fi Sénégalais yi ki ñuy tuddee nitu diine waaye muy danga mais la si réellement bu li mu mën nag mooy ñu interpeller la société ku ne am nga ci sa sa sa sa pàcc ak sa nangam li ci des tendance bi ñu bëgg a jëlee lenn ci ay këri këri diine ak kilifay diine mooy ni yow fi la bëgg jox laa ci marge société bi ngay nekk liñ lay soxlaa toujours néew baa ngi euh, liir baa ngi donc tey ñi ngeen di wax ay politiciens ñenn ñi ku ci yoragul pouvoir sëriñ si baax boo ko ñàkkee sëriñ si bona koy wax mais ñooñaa war a xam jël ma la wax naa ko sànq problème problème de citoyenneté la sëriñ bi ne citoyen li waa ji yor wala keneen yor ka la ñu war a mën a yor lenn nag moo am wax naa ko daaw problème mu Sénégal mooy ni discours yi dafay bari constance moo jafe li ngay wax kii tey nee nga yaay sëriñ bi bu ngoonee nga wax que nit ñi dañoo dispersé wu xamuñu fu jëm lan moo ko manque de courage man foofu laa ko teg nit ki li nga bokk da nga naan ràññe ni tekk na nga balaa ngaa balaa kenn li fi ne c'est une société bu sénégalais yëpp bokk. nit ki bu man la nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toujours mu wax leen bi muy génn màkk ñu koy dàq ah koy génnee màkk dafa jubla màkk wàcc yàlla ni amul fu ko gënal fii loolu la dafa jiital citoyen la teem en tant que dëkk ku dëkk màkk kon bëggul wattan mi nag iman li fi la man su fekkante ni may sëriñ bi ñu war maa gëm loo ni ay malaaka rek laa war a di wax ak ñoo malaaka yi roboo lañu ci beneen monde la nekk yaa ngi ci kaw suuf toog problème de courage la ak waxi nangam dama yaakaar ne ñun suñu jàngoro mooy problème mu citoyenneté ki ñuy wax loolu bu mu yaakaar ni moom tey ko macha allah lii wala eh, solutionné société bépp ci nangam la nekk kooku erreur bu réer donc dama yaakaar ku jégi am na comme ça c'est la démocratie démocratie nag évolution dafay daal di am sans kujje gi démocratie dootul doon démocratie et foofu la affaire mais dañuy fàtte ni dañuy nangam mënuñoo anticiper ñun ñun en général de Sénégal boo doon tey nga ñëw jël le nombre des analphabètes presque quatre-vingt nangam pour cent yaa na fi jàngulu et aujourd'hui nii tubaab yi bëgg tëralee seen société nga xamee ne France toujours ko fu ne la jaar ba egsi fi mu egsi tey ay royauté empire république ba cinquième république monarchie et tout ça yow soixante nga am indépendance ñu wëgg laa xalaat loo xalaatu tubaab boo xamante ni ci fan la nga jaar nga jël juutal sa société tey dañuy wax fii lii nga ñëw jël lii nangam or waxtu bi tey wax yow yow mi wax loolu ñaata sénégalais yoo xamante ni boo ñëwee taxaw quatre-vingt-dix pour cent am ñu rajo bi ñu déglu nga ñaareel bi nga leen làkk lu ñu déggul ba noppi ça veut dire que ni benn élite ci boppam élite. benn élite rek ñooy jëflante et la majorité de la population mën nu jàll kilifa diine yee tim fa tabaarakallah lii seen rôle man li ma koy wax nanu nanu nanu wax taba xakañ ah li yàlla wax mais nag bu la nanu bañ pour nit ñi marginaliser leen jël seen citoyenneté sànni que bu ñu neexalee ni leen yéen la bu ñu naqaree ni leen yéen la dama yaakaar ni problème de responsabilité la